jiital ci bi monsieur le sous-préfet di ci tek wa di tek ci bi monsieur le maire Gabriel Bob. di ci tek le président de la commission jeunesse et sport di ci tek le président de la zone di ci tek le parrain Talla di ci tek

Ndiassa Kairé ci taxaway mu tamit di ci tek Mamadou Diop di fay ma di ko wax monsieur momari <laughs> di ci tek vraiment ñi nga xam ñom ñep ñu fi tew Ibrahima Ciss mom mom damay wax ndawal gudd la rek bu jigeen ñi xewle mi ngi ci bu ndaw ñi xewle mi ngi ci bu mag ñi xewle mi ngi ci yàlla yaa dëgëral sa taxawaay Ibrahima. xam naa kàddu yi dama koy accès rek ci nga li nga xamante ni moo ñu fi desale tasale muy sport ndax boo waxee nawetaan rek wéyjur yëpp seen fit day dem quoi qu'on dise nañu waxante dëgg rek bu ñu waxee nawetaan. wéyjur yëpp seen fi day dem te li tital wéyjur moy tital maire moy tital préfet moy tital commandant lan mo waral lolu violence parce que léegi nawetaan dañ ko égal violence te lolu wurul nek bo liggéeyee wala nga jang ba vacances ñew divertissement lañ wax kon kene leen permettre pour divertissement bo mën nek li ngeen kay mën sédélé xolam moy ngeen jël violence teg ko fee te ñun nekkuñ ci ville ci village lañ nekk te village képp ñëpp xam nañ ay ñëpp ay mbokk lañ parce que su ma waxee biir Kër mu bi ma nekk rek quartier boo ci tudd am na ko jóge ci quartier boobu dem ci quartier bee am fa njaboot kon boo laalee kenn rek laal nga ñëpp kon loolu dañ ko sóoraale vrai vrai ay xale ngeen mais loolu dañ ko war a sóoraale boo xalaatee su ma waxee kii dinaa tudd kee nee na seetaan loolu bala ngeen koo def ki nga xamanteni da fay jël ay fonds di ko def ci nawetaan pour ngeen permettre ngeen mëna def sen nawetaan correctement koku bu ngeen ñëwé di nga wax affaire nawetaan sax fitam day dem ba ci partenaire bi nga xamanteni da fay ñëw di investir pour ngeen sen lol ngeen def mëna a koku dootul sawar ba ci bonne volonté bi nek ci koñ bi di ci japp tamit dootul sawar kon li ma leen di wax ak di leen ko ñaax moy tu leen violence man ngeen football ba ba mu jeex ta benn problème du am parce que man japp na ni fo ak la war doon mais bo meree nit nawetan ngay xaar bo bëggee def nit dara wala nga war ko wax nawetan ngay xaar loolu mën na ñak xam leen ay mbokk ngeen parce que dama ci am loo xam ne maa ngi ci siiru en tant que femme sama gis-gis bopp nag la ASC la mënumaa dem waaye kenn dem am na da ngay fexe ba créer problème impacté ñëpp ñëpp toog loolu pour lan la final ñaar équipe ñoo ko war a def du ñett du ñeent ñaar équipe rek ñoo dem final kon forcément il faut mu am ñoo xamante dañuy toog boo toogee nga xam yow comme li Pape Sarr wax c' est très important gis nga mën a football mën a tax nga am coupe yàlla mooy dogal loolu bu yàlla dogalee nga bokk dogal na nga toog amal fair play tamit nga accompagne ci des mais naa yàq affaire yi loolu am na fii ngeen moytu loolu tey nawetaan boo demee ba ci dégg doomu aadama faatu loolu mi ngi bëgg a ëpp parce que Tëngéej loolu ma fa am waxuma am na fii de ñaanu yàlla sax mu am ko mais am na ay fee yoo xamante ni de grâce dama leen koo ñaan en tant que wayjur ngeen moytu ko parce que wayjur bu doomam footballul sax munoo fexe ba téye xale bu góor ci kër mu war a seetaan nawetaan demul munoo ko. ndaw bi sa day dem da nga yëg ci kaw montagne ta sa ay xalé yo xam wuruma seen waaju jigu ñu xalé ndaw ay 2 ans 3 ans kooku bëgg-bëgg motax muy dem kon de leen suuraale ñu parce que histoire bu yeme ci mag ñi sax day impacté xale yooyu donc de grâce ma ngi li ñaan lolu ngeen bàyyi ci xel bu baaxa baaxa baax li ci dess nak moy sante di gëreum jigéen ñi nga xamant ñom la andal day suba rek ta xew yu bari na motax ñu toll ni mais heure bu ma jógee ñu juk di leen ñaanal yàlla tamit subhanahu wa taala yàlla na yàlla jàppale ba lii ngeen di sumb ngeen commence si bisimilahi rahmaani rahim eggale ak alhamdulilahi rabil alamin ndax je pense que Mamadou Ndiaye Lota taxawaay bi mu am ci accompagner leen ak jàppale leen monsieur le maire dooleel ko comme ni Ibrahima wax sànq tey bu ñu mënee dara ba di ko def ak am jàmm ba di ko def yàlla ci moom la ko jaarale moom tam yàlla yàlla dëggal taxawaayam suturaal ba nga eggal lépp jàmm salaam. Ibrahima Diouf xam naa ni tiituñu dara dagaluñu dara parce que moom finance maire bi yëpp moo ko yor finance kër Moussa bi yëpp moom la ko yàlla dégg kon xam naa ngeen ko jigéen ñi incha allah lépp dina baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. subvention aussi monsieur euh, Palla yaa may laaj subvention mais sama xel dafa dal Palla bi may laaj subvention sama xel dafa dal bu ma gisee Ibrahima Diouf dugg si ci salle bi. donc je pense que xam naa ne bu demee rek moo monsieur le maire dañ xool nu ñu mën a def mu gaaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla sotti lépp jàmm ak salaam